nga dem financer benn livre benn jigéenu tubaab ñëw bind ni Casamance dafa war indépendance. bu dee ñoom am nañu fit nañu génnaat ñu wax lu mel noonu ñu xool ndax ils n'iront pas en prison. nag li ma wax bu ma ci delluwaatee nga tëj ma kaso préparer cellule bi may doon maa ngi ciy delluwaat pour jigéenu tubaab bu dëkkul ci réew mi bind livre wax ni Casamance dafa war a am indépendance.

kan moo sañoon a def loolu su Macky Sall kan kan moo sañoon def loolu su Ablaye Wade kan moo sañoon def loolu su Abdou Diouf kan kan moo ñeme lool ci àdduna lan moo tax ñu def ko ci nguur gi loolu loolu il faut nit ñi xalaat yi lan moo tax général Kandé moom nga xam ne moo ñëw dàq rebelle yi jëlaat Casamance yépp nguur gi bi mu ñëwee li ñu njëkk a def mooy affecté ko Inde mais il faut ngeen xalaat ci lan moo tax Casamance jël seeni jël seen drapeau yëkkati ko ñëpp gis ko te nguur gi kenn yeeyu yàbb ji lan moo tax lan moo tax plan Fouta amul plan plan plan plan Kajoor amul plan kii plan Casamance lañ njëkk def ci réew mi lan moo tax fale fale ndox maa ngay nangu kii ñëpp di bëgg a dee foofu amul plan lan moo tax plan Casamance lañ def ak 62 milliards yooyu il faut se poser de questions parce que nag attention kee maa may nee na ma réew mi guddi gi nit ñi tëdd nañu waaye kenn nelawu fii te képp ku jàpp ni

On a pris toutes les dispositions. Les questions qui relèvent de la sécurité nationale d'une ko Boudé bu dee ñoom nous nañu fit nañu génnaat ñu wax lu mel ñu ils n'iront pas en prison. Assalamu alaikum, Ousmane Sonko bail di ma da nga ni yonent yalla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam moy sa référence yonent bi daawul tekk kenn yonent bi da daan jangale ak di xamle waaye daawul tekk kenn da nga dem ba Casamance di cas di campagne bolé di ma wal ak di ma tekk ndax li nga wax ñepp xam nañ ni man mako wax da nga ni nak li wax bu ma ci waté nga tejj ma kasso préparer cellule bi may dem parce que nga ci delu wat ni lii laa wax Sénégal dama ni leen Casamance la fa xew ba nguur gi ñëwee ba léegi dama cee am njàqare ñetti yëf moo tax ma am ci njàqare bu njëkk bi mooy waaye fupp ya fa nekk dañoo yëkkati drapeau Casamance drapeau rébellion bi te dégguma président de la république yéy ci yàbbi dégguma Ousmane Sonko yéy ci yàbbi dégguma kenn ku bokk ci nguur gi ku ci yéy yàbbi loolu musul am Senegal. benen bu ci top mu am jigéenu tuba bu dekkul ci réew mi bind livre di wax ni Casamance dafa wara indépendance degguma Ousmane Sonko ye ci yabbi degguma kenen ko bokk ci ngor bi ye ci yabbi il fallu man ma def émission wax ni livre bi Ken war ko def dédicace bi Sénégal te ndaw si fixé won na datu dédicace Sénégal ba ñepp xam ko kenn waxu ci dara il a fallu ma dénoncer ko pour que ñu ni ñu muju annuler dédicace ba daal di dootul amati ba pare daal di tere pour ñu jaay livre bi Sénégal ma ne loolu njàqare la ci man ndax livre bu mel kenn mosoo xalaat bind ko ci suufu Macky Sall wala lay waat beneen bi ci topp ma ne général Kandé nga xam ne moom moo duma way fipp yi ba indiwaat jàmm ci Casamance nguur gi ñëw ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko Inde affecté ko ma ne loolu njàqare la ci man. mais bu fekkee nak Ousmane Sonko lol tax nga ni man da nga wara tej kasso demal ci Google wala YouTube nga bind affectation générale Kandé nga xol intellectuel sénégalais liñ ci wax xam man dama ni dama am njàqare rek waye demal Google wala YouTube nga def affectation général Kandé nga xol intellectuel manam bo may tej tay li nga tej au moins 200 wala 300 intellectuel sénégalais yo xam lañu wax man jall na bu baax li ma wax mais sa sa tekkuy da fay wane rek single bi ma single tay lerr na nañ ni bi nga may yóbboo deux jours gàddaan bi ñi lay waxal naan du yow tey lenn naññ ni danga ma singili te li nga bëgg taxaw ci temm mooy dugal ma kaso nee nga dinaa dem nëpp di nga ma tëj rëbës ba ma nëpp loolu nga wax Ousmane Sonko ko respecte justice Sénégal ngir yàlla yow premier ministre yaay tëj nit ñi ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy nëbb rëbës respecté le justice Sénégal ci Sénégal ay magistrats yu am yu am valeur ñoo fa nekk te nit ñu baax ñoo xam ne école bi nga génne lañu génne xam nga ëppale woo leen dara nga taxaw yow en tant que premier ministre naan yaay dama ku ko def da ngay dem prison mel yaay tëj nit ñi te loolu mooy liggéey bi nga xam ne justice Sénégal moo ko war a def respecté justice Sénégal bi yàlla ba pare Ousmane Sonko affaire Kandé bi bu fa amee kenn kuñ ci war a topp mooy yow ndax da dangaa wax lu garaaw garaaw garaaw da nga ni li tax ñu affecté Kandé yaa ko wax de dafa am rapport bo fi fekk bo xam ni la nga wax ni mo nek ci rapport ba sax man sañu mako waxat parce que li nga wax ni mo nak te loolu moo pour karangé Sénégal xam nga da nga ni man limay wax li la ci metti moy day laal kaat limay wax man non seulement laalal karangé Sénégal day défendre armée bi waye yow li nga wax lool mo laal karangé Sénégal motax li nga wax ni mo nek ci rapport ba man duma ko duma ko nett mais bu fekkone kenn lañ wara top ci yef yi moy yow parce que rapport bobu au minimum secret défense moo ko moo nga ñëw la ca nekk nga ni ko ci penc voilà. salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi maa leen di ziare bu baax a baax a baax yéen a ngi am jàmm naka dimanche bi yéen a ngi dallu mais sama gars yi tey nag day ñëw wax ci Cheikh Yérim Seck dañ ko doon vaar tey quoi ndax gis naa ne sa waaye dafa jënd glace Cheikh Yérim da nga jënd glace quoi nga ne femme boobu noonu nga ne kan moo ko financé. xam nga premier vidéo bi dañ ne Ousmane Sonko def ko financé pour mu bind livre ci li nga xam ne moo xew Casamance ak wax nga ci général Kandé tamit waaw wax nga si quoi léegi bila la Ousmane Sonko arto nga ne dañ siy waxaat nga ne dañ siy waxaat nañ la defaral foofu nekk ci rëbës xam ne wax ji yaa ngi siy jaaraat mais biñ siy jaaraat dañ ne sama xalaat ak sama yaakaar non jënd nga glace. waxee woo ko ni nga ko waxee woon bu njëkk Cheikh Yérim fekkee danga nga bëgg a dem prison yow da ngay jaaraat exact li nga waxoon nga waxaat mais ni ko waxee woon ak ni nga ko waxaatee bokkul ku nekk nag am nga xalaat ci réew mi ku nekk tamit am nga sañ-sañ Ousmane ko wax dara wala Basirou Diomaye fay wax dara def dara nga ne ànduma si sama xalaat nii la ak ne loolu moom may nañ ko ku nekk am nga si droit quoi nga ne ñaaw naa njort ci lii wala lii ak lii. man suma sañu sañoon nii lay demee am nga si droit quoi mais pas ngay tuumal nit ngay accuser nit loo xam ne waxu ko wala defu ko nee nga femme boobu noonu Ousmane Sonko moo ko pour mu bind livre livre boobu noonu ñoo ngi ko war a promouvoir fii nii Sénégal nee nga sax yow yaa tax gars yi tere ñu jaay fii livre bi non Cheikh affaire bi ni ko waxee woon bu njëkk ak ni nga ko waxee waatee lu benn de waaw fii am nga droit nag ne njortu naa lii ak lii mais li nga waxoon ne Ousmane Sonko moo financé ak fii ni nga ko waxee fii nii bokkul kon yow pare goo pour dem prison ëpp nag baax na ci laax bu tàng torop da ngeen di dangaam rek lu seen yoon nekk ak loo xam ne seen yoon nekku si ngeen ne yéen da ngeen di ñëw pour wax si baax na dee leen tuumalaate rek Sonko moom wax na leen lu leer. li ngeen di café ak li ngeen di jaaxaane sécurité réew mi bokk si waaw Sonko nag bu yeboo ngeen saaga day fen ak day nii ak day nee bu yeboo ngeen wax ku lu leen neex man xam naa Sonko xam naa ne du leen toog si loolu noonu Sonko bu ko neexoon instant bii nii yéen kenn du fanaan ndax ku ko ci wax lu dul dëgg ku ko ci saaga da lay plainte te bu la plaintee yow yaa tooñ da ngeen di tooñ Sonko di ko wax lu ko neex même bu fekkul woon ne du premier ministre du du dara. yow nga tuumaal nit ki xas ko saaga ko bu ko neexee mu plainte la bu la plainte yow yaa ko tooñ dañ lay téye loolu moom dafa leer moom Sonko bu ko neexoon yéen ñëpp yéen ñii di wax nii yëpp kenn du ci fanaan ndax yéen ci tooñ ko ngeen dëkk ci tooñ Sonko ngeen dëkk ak di ko waxal loo xam ne du noonu loolu moom ñëpp xam nañ ko léegi Abdou Nguer xaw ma gars yi la ñuy xaat ci moom Abdou Nguer mën naa fen mën naa sos lu nekk nag la fiy waxal Sonko ay parti fenkat yeeg parti reykatu nit yeeg lu nekk lay waxal Sonko ah. man nag xam naa ne gars yi dañuy xaar bés bu rafet rek Abdou Nguer mu ngi tooñ nag mu ngi tooñ de xaw ma ana ay mbokkam ana ay famim ana waa këram mais Abdou Nguer mu ngi si tooñ damay ragal nag bés ñëw ñu jàpp ko ñu ne lii politique la wala lii Ousmane Sonko la wala lee kee la wala Cheikh Yérim Seck bii di dangaam nii ñu convoqué leen téye leen ñu ne lii affaire politique la. man nag li ma gën a métti ci senegal dañuy xool nit ki de muy tooñ ñu koy seetaan muy tooñ di saaga ñu koy seetaan muy wax lu ko neex gaa yi di seetaan bañ jàpp ko ñuy soog ay mbokkam soog a génn ku ci nekk naan maay magam kii naan maay maay maay kii naan maay jabaram kii naan ma man maay doomam te bu muy tooñ ñoo fi woon de kenn waxul ñoom ñëpp ñi noppi muy wax lu ko neex di saaga di tooñ lu ko neex mu wax ay mbokkam ni cell di seetaan bes ñew ñu japp ko ay mbogam yépp génn naan ki dañ ko ton kii dañ ko jaay doole li affaireu politique la loolu dafa wara a jeex ci réew mi gis nga sa mbokk bu tooñee teelal jëm ci moom ne ko yow yaa tooñ bàyyil li ngay def bàyyil tooñ yi bàyyil deru diw bi nga yàq fekkee da nga ko bëgg a dimbali foofu nga koy dimbalee ay mbokk Abdou Nguer laay waxat fekkee bëgg ngeen dimbali Abdou Nguer ci bu muy teel teel leen wax ci moom bu leen xaar nag bañ jàpp ko fii nii ngeen soog a naan lii affaire politique la wala kii dañ ko tooñ man maay maamam man maay yaayam man maay lii am man maay lii am ak lii am loolu moom daf fi war a jeex ko fekkee bëgg ngeen ko daal teel teel leen a jóg si moom mu ngi tooñ nag lu leer laa leen wax waaw lu leer laa leen wax Abdou Nguer mu ngi tooñ Cheikh Yérim Seck mu ngi tooñ gaa ngi tooñ rek lu nekk lañ fiy waxal Sonko tooñ yi nag bëri na trop mais damay xaar nag bañ jàpp leen ngeen doog nekk fii naan. ñii dañ leen a tëj ngir politique ñii dañ Sonko warul tëj ñii warul tëj ñii man li ñuy waxal Sonko buñ ko defoon keneen ba ni jàpp nañ leen dañ leen di dañ leen di yóbbu si yoon man ku ma tuumaal loo xam ne defuma ko dama lay yóbbu si yoon te bu ma la yóbboo si yoon yaa ma tooñ te ku dooñ ñëpp xam nañ liy tegu si kawam kon baay leen tooñ bi bàyyi leen tooñ yi waaw loolu laa amoon lu ma leen conseil quoi fekkee bëgg ngeen daal bëgg ngeen am jàmm daal bàyyi leen tooñ yi waaw seen mbokk yi nañ teel a ci si li jënd seeni affaire balaa yoon di lijjanti seeni affaire loolu moom dafa leer moom vaaroon naa fi ab Nguer li mu waxoon ci permis Ameth Ndoye bi waaw newoon na permis bi dañ ko supprimer ci plateforme bi loolu noonu du dëgg Ameth Ndoye mosul am permis dégg naa sax bërëm per borom numéro bi nga xam ne moo nekkoon ci attestation bi porte na plainte Ameth Ndoye kon xam nga dugal ngeen Ameth Ndoye ba pare nekk si biti nekk di waxaat Ameth Ndoye kenn tooñu ko moom moo tooñ ñu jàpp ko ay mbokkam génn naan jabaram kii naan man maay maamam kii naan man maay magam Ameth Ndoye ku baax la woon gars yi teel leen jóg ci seen doom yi balaa ñuy dugg ci benn affaire boo xam ne waaw doo leen si mën dara fi mu nekk ne kenn fekk ko fa de moom kese moo fay fanaan prison ba lu metti métti moom kese moo koy dund noonu la demee kon teel leen jóg ci seen doom yi ñu bàyyi tooñ yi du ma du ma sonn ci di leen wax loolu noonu bàyyi leen tooñ yi seen doom yi nañ bàyyi tooñ yi baax na sama gars yi bëggee naa leen bu baax a baax ba ci beneen vidéos gars yi jaajëf